أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخ المسائك عالم الشريعة وأستاذ الطريقة أبدال على الله قدوة السالكين أحمد ابن محمد التجاني الشريف العاصم الفاتمي بكي jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara fi ñu leen daan ziyaara mais di leen ndokkali boo déggee mawlaaya salli wa sallim sa xel dafay dem ci tabarakallahu màggal juddug yontu yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sa xel dafay dem ci fàttali ko sang boobu muy sayyiduna muhammadin alayhi salatu wasalaam mais boo déggee gàmmu sa xel tim dana dem ci góor yàlla bu mag boobu muy mawlaay seex si laaji malik si ardu tiwaawoon ahluna saadatuna faxrul wara ardun bi sheikhul wasilatu malikun jawful fara seex si laaji malik si est-ce que certes El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu nafa'ana Allahu bi barakatihi suyubaati wa anwaari سقيجو قمقم قد تفزجي كي لقاعي وبفروح المتفجي في الناس على من بيني وويني أعلمنا جميعا مما نحتاج من سيرة المختار شيخ سيد الحاج مايسر رضي الله عنه محمد البوشيري دي بيننا لي خا موي بوردات الماضي مي دغ دغ دغ دغ كيكو فالوريزي باني خام كو موي bàyyi sëriñ Babacar si radiallahu anhu bàyyi Mouhamadul Mansour bàyyi Cheikh El Hadj Abdoulaye si Dabaax yàlla yàlla fayal ñu xayra jazaay Cheikh Sidaaju Malick si moo may valeur li nga xamante ni mooy Burdatul Madi te loolu ci yaatalam loolu ci xam-xam loolu ci bëgg lu baax ak barke bi nekk ci burdu fa tabaarakallah sunu xaalixiin ñu daxtanteeg temps bi Mouhamadul Boucheyri sabab bi sabab mooy dafa feebaroon def tawasul ci yonent yàlla Muhammadin alayhi salaatu wasalaam woy ko woyu rëy daf xasal bu rëy rëy rëy ci moom jógee fa yedd bakkanam beneen bu mu feeñal yonte al muhammad bunt yi noonu la ko teg ba fukki bunt yi te mu fassiru ne yu wax nañ ñoom ñëpp kenn ku ci nekk nee na rabiul awal ñii neen benn fan ñii neen ñaareelu fan ba la ñoon njool maako juddu ñii neen ñetteelu fan ba la rasulillahi juddu ñii neen fukkeelu fan ba mais fi ñu dëppoo ñun ñëpp mooy onzième jour bi rasulillahi ñëw ci fukkeelu fan ba ak ñaar ñi ci ëpp neen fa la juddu moo tax seslaaji maalik bi di barkelu ak di lamb bis bi mais nak fa tabarakallahu sunu khaliqina sunu khaliqina yàlla yàlla fay leen xeere jaza burdatul madi bàyyi fi xiraatu zahab bàyyi fi li nga xamante moy abada buru bàyyi fi nuuniya bàyyi fi laqad aja qalbi lil anini ajulu bàyyi fi tori tere yi nga xamante ben bu ci nek man na ci gamu at mu bàyyi ko fi jeul di barkelu burdu lolou dama ne mbaax mënu ko wessu yàlla yàlla fayal ñuko muhammad ibn sirri séri way sayyidina muhammadin feeñu ko te yonent al Muhammad nee na man raani fil manaami faqad raani aqan fa inna sheytaan laa yatamassalu bi képp ku ku tëdd guddi gis ma guddi man nga gis man Seydina Muhammad ndax seytaan yi mënu maa caricature waxaan ne képp ku ma gis ci ci nelaw da nga ma gis yàqal zatan kon mu gis Seydina Muhammad yàqal zatan dégg nga ko rasulillahi salaam feeñu na ko fa ma ba mu waxee ba وأنا خير خلق الله كلهم ba muy woy njool màkka ba dem ci dégg nga ko misraaw boobu na fa mablaxul ilmi doy xam rasulillah alayhi salaatu wasalaam daal mi ngi yem ci xam naa ne dëgg dëgg dëgg daal mbindeef la yonent yàlla Muhammad feeñu ko àggale bayit bi àggale misraaw bi muy bayit na ko nag wa annahu xayru xalqillahi kullihim lay mbir tey mbir li am ba des mooy ki ngay way moo gën ci ko yàlla bind muhammadin mu tàmbale ko xasalam bu bi na amin tazakurin jiranin bi amin tazakurin jiranin ما زتدم dam'an جرى min مخلة في دمي na amazajta ndax da ngay jaxase dam an rongañ boo xam jaraa mi ngi daw min muxlatin ci gubat bidamin. bi damin deret joo xam ne dafay jaxasoo ndox ma day sotti di sotti di ba far deret ji génn di jaxasoo ngir fàttaliku min tazakkurin ci fàttaliku jiiraanin ay dëkkandoo bii salamin ñi nga xam ne ca ko jug salam lañ te salam diggante Makka ak Madina nekk jege Madinatul Munawwara wa كازمة وأومد البرق في Mouhamadul Bousseyd dafa def tajrid ci wàllu bayaan mooy dafa xar jëmmam ji ñaar di wax ak benn jëmm ji mu ne wala boog am xëbbati réew wala ngelaw dafa upp ngelaw li dafa yëngatu ba ka min tilqaa'i kaasimatin bàyyi ko dëkk bu ñuy wax kaasima moom tamit soriwul madinatul munawwara wala boog wa awmadal barku wala dafa dafa xuuy lan moo xuuy mun a melax fii dalma it ci lëndëm min idami bàyyi koo ci wàllu gu féete idam yooyu tim ismu makaan la jege madinatul munawar fama li aynayka in qulta fuha mata fama li qalbika in qulta stafir yadimi fama li aynayka ana lan moo nekk ci sa ñaari bët yi joy yi dul arrêté in qul toog foofa xamata saa yoo ne ko arrêtal mu mu mu gëna dotti ay rongañ wa ma li qalbika ana lu nekk ci sa xol bi in qul tastaxfiqi yaimi saa yi ne ko xiqir rek mu gëlëm mu gëna gëlëm gëna jeex ci rasulullah alayhi wasallam ما بين منسجم من هو مستريم mu ne wala aya sabu ndax dafa njort ana subba naka aji cofel anal xubba naka mbëggeel mun katimul lu ñuy nëbb la mbëggeel boo xam ne dañ koy nëbb de loolu munu nekk de mbëggeel bo rawatina ak boo xam ne maa bay na mun sajimin ci mi ngi takkaloo ay bët ci njàqare dégg nga ko mi ngi sotti di jooyloo waa ji ba koy sotti di ko indil njàqare min u ci wa mu tarimi ak takk takk xol boo xamante ni yooyu ëpp na foo ko takk weesu na ngir bëgg ki mu bëgg ki bëggam bi for na man law la hawa bu nekkuloon lam turix du soti dam an rongañ ala talalin ci gent doo ñëw ci gent dëkk boo xam ne yaa ngi fa newoon ne fu ñaar fukki at ñeent fukki at ñu toxal leen yóbbuli ci beneen dëkk ngeen ñëw nekk dëkk bi nekk benn gent nga ñëw nag di ko fàttaliku bay jooy xam nga ne moos bu nekkuloon bëggeel loolu du am loolu la xawaa bu nekkuloon cofeel lam tuur di sotti dam an rongeñ ala talin ci gent wala arixta doo foog mooy vee doo ñàkk nelu li dëkkrin baane ngir fàttaliku montagne baan wal wal alami ak alam yooyu nga xamante ni ay ay ay garab la yoo xamante ni ñoo nekkoon ca dëkk boobu ak ak li nga xamante ni mooy montagne yu fort yooyu fàttali gi koy fàttali mu poussé la ba ba ñàkk laa teree nelaw loolo foor na ci yow mu ne naka ngay mën cofeel goo xamante ni ay sotteeku rongoñ yu maandu ak feebar moom de seede na ko fa kayfa tunkiru ana naka ngay weddee xubban cofeel goo xam ba dama sa idat ginnaaw bi mu ko seede bi ci moom alayka jëm ci udulu dam i sottiku ak rongoñ wa saxami ak feebar goo xam ne daf la songoŋ loo wa asbata العبرة مودنا مثل البهار على خديك والأنام وأثبت صخلنا الوجد نقري قطع عبرة sotti ko rongoñ wadanan ak songong songong moy febar bo xamanteni daf lay daf lay daf lay jeexlo ku gis xamne yow mi amna lol dal même donte da ngay neub febar bi mais amna lu feñ ci yow muy feebar bu lay loolu di la taaye mislal bahaari mu mel ni gàncaxu bahaar ala gadayka ci sa lex bi wala anami ak gàncax boo xam ne gàncaxu anam la loolu kat sa ñaari rongoñ yii di daw sa xar kanam bi loolu feeñ nag ba loo ko nëbb nëbb nëbb mi ngi feeñ ndax bëgg ki nga bëgg mu ne na aha kañ sarara na daw na tay fo man ceeñeer ko nga xamante ni man axawaa fa araxini cofeel ki nga xamante ni daw na rañaane na ba mu dem ba gàllankoor ñu ne lan la mu ne Muhammad Busiri ne wal ubb na ko cofeel ya tari dafay gaaral lazaata ban danneex bil alami ci métit maanaam nit ki boo ko bëggee bëggal gi day dem wëlbati ku nekk métit boo xamante ni dafay nekk nag contraire ci yow ndax bëggeel gu métti ndax cofeel gu métti ndax bëgg goo xamante ni ki ngay bëgg fa tabaarakallah sunu a soro na ci yow ya laimi fi lhawa usri masiratan minni ilayka walaw ansafta lam tunumi ma yaa laa imi yow mi may jéem yadd fil xawaa ci sama cofeel gii unzuri yow doxal ngant maziratun waaw na nga def ngant ci koju benn giir la goo xamante ni niñ daan bëggee ni ñu rafetee woon seen bëgg foo ko takk weesu na mun a doxal ngant ci koju ma unzuri ci benn giir goo xamante ni ñoom seen bëgg gi liñ daan bëgg ni mu for for mais terul ñu sàmmwul lañ woon bu ñu bëgg duñ bëgg bëgg gu ndaw moo tax bu nit bëggee nit dañ naan la yow daal yow da bëgg ba mel ni benn famille boobu ñuy wax banu xusayra ñoom ci boppam ñuy bëgge seen bëgg dafay foor lool mais nag noonu lañ sàmmoo woon noonu lañ lañ bëggee woon li nga xamante ni noonu lañ mën a téye seen bopp ba duñ mooy seen borom moo tax mu a yow mi nga xamante ni yaa may jéem a yedd doxal ngant ci ko ci boo maandu woon sax yow dooma jéem a yedd mi ni ilayka ci man law an safta boo selloon lan talu mi dooma dooma dooma dooma jéem a yedd adal ka jéggi laalii sama mbir sama mbir sirri bi sama mbir nëbbootul ñeel rambaaj sama feebar bii mënatul arrêté waaw waaw adat ka jéggilaali sama mbir la sirri déet mu nekk loo xamante ni lu nëbb la bi mustatiri ñeel ñi nga xam ne mooy mooy mooy aji nëbb nëbb mbir عن الوشاة نيال رمباجي ولا ضاعي بمنعصمي سما جانغرو بيد المنطل أريت منطل دوك ما عدتني نص لكن لفظ ما عدتني نص لكن لفظ أسماء إن المحب أن الأذالي نانا يانغ ما جيما يد أكدما لا يدير مي دكلو مالا آه. من دال إن المحب anil hubali fi tamami man sama bëgg gi ma bëgg dal dama dama mujj du mu ñi nga xam ñoy ramba yi nga xam ne ñew di ma yedd ak naan ma yow loy bëgg ki nga bëgg faaliwul ak yoyu man dal dama tëx dama lu gisatuma ramba yi nga xamanteni ni ñoo may jema yedd ci sofel gi nga xamanteni ni bëgg naa ko waa nga xam ne bëgg naa ko inni taxamtu nafsi hasabi fi azalin nafsun anit tuami man sax maa ngi tuumaal ki nga xamante ni moom mooy jéem a yedd ak di ma biir ci ngant li ma am te kat bejjaaw moo gën a sori ci laaye biir ñeel ñi nga xamante ni ñoo koy tuumaal kooku tuumaal naa ko mooy bejjaaw topp naa sama giiru dund topp ko ba sama bejjaaw feeñ mais man tuumaal naa ko faaliwuma ko tëx Luna Gisutuma kenn kudul waa nga xam bëgg naa ko te sama mbëggeel kenn mënu ko arrêté te ci jublu mooy yàlla muhammad alayhi salaam لم دائما أبدا على أبيبك خير الخلق كلهم أوكي ساتر Sayo نك dañu burdatul madi tëdd ci lal bu sell guddi googu doon gis yontu yàlla muhammad mais ci sababu nag ngay julli ci yontu yàlla muhammad mooy mawlaaya yow sama borom salli yàlla nga ma jullil ala ala abibika mawlaaya salli wa sallim daa iman yàlla yàlla nga ma jullil julli goo xam ne dafay sax yàlla nga ma wàccal xéewal ci yontu yàlla muhammadin daa iman boo xam dafay sax abadan ba faw ala abibika sa sofee sopp bi nga xam yaa ko bëggal sa ki nga xamante ni moo gën ku yàlla bind ku mu doon sayyidina muhammadin moom moo ca gën moom rasulillahi alayhi salaatu wasalaamu mi nga xamante ni yàlla ne bu ngeen bëggee ma bëgg leen bëgg ko muy yonent yàlla muhammadin alayhi salaatu wasalaam bu ngeen ko bëggee rek ma bëgg leen in kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uuni yuhbibkum allah yàlla ne bu ngeen bëggee ma bëgg leen bëgg leen sama waa ji muy sayyidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam kon buntu bu njëkk baa ngoog yàlla yàlla defal dégg ak topp ba beneen yoon incha allah taala lu ñu mën a am ci temps rek nekk ci yéen ci guddi guddi yi nga xamante ni mooy bordatul madi wa axir dahwana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh